unissons la et les sources, unissons la et la forêt. Salut Afrique mère. mouvement humanitaire bi du Croix-Rouge section anne Bel-Air amal nañ samedi bi ab cérémonie pour sensibiliser à ce Hann Bel-Air Niel Mbasmi du coronavirus tambalé au ci orthocène sur mer diapo tourné ci Mariste le lieu ci teewaayu autorité locale ku ci mel ni Babacar ngi di maire bu Hann Bel-Air ak naataangoom bi di Soham Wardini nekk maire bu Ndakaaru lii rek moo mën a arrêté law bi feebar bi di law bu nit ñi solee masque comme nii fii ñi fi nekk ñëpp dañu sol masque ñu raxas seen loxo ak saabu man nee naa toujours saabu bi moo gën sax gel bi ndax saabu bi cherul ba pare mooy gën a efficace que gel bi kon li xale yi di def tey Hann Maristes lu am solo la bu ñu ko doon def ci kartie Dakar yëpp xëy na law damay encouragé équipe yi ma fi gis di leen wax ne nañu continuer ci lii en tout cas beneen yoon damay ñëw ànd ak ñoom journée bi yëpp ñu dox sensibiliser ma leen di félicité di leen encouragé te di leen fàttali rek ne mairie dakaar dana ànd ak ñoom ci liggéey boobu fuñ ci toll rek dimbale leen ci ay euh, matériels médicaux dimbale leen ci sensibilisation bi buñ ko gënee mën a médiatiser yéen dégg naa yéen da di médiatiser bu baax mais bu ñëpp dootuñu dootuñu ko sewal parce que ñu bari dañ defewoon ne feebar bi amul waaye tey fi ñu toll ak nombre de décès yi am régulièrement il faut nit ñi xeex ba wax dëgg yàlla bi yem fii kon ñi ngi jëm ci feetu tabaski yi daral yeeg marché yi na nit ñi góorgóorlu di sol seen masque di raxas seeni loxo di bañ di jegewoo nii nañu sori wante dandante bi nañ ko def te bañ a jaxasoo. ci noonu nag Babacar Mbengue ngi maire bu Hann bel àdduna ci te di ñaaxaale askanu Hann gi yëpp ngir ñu gën a topp mesure barrière yi. feetu tabaski bu jotee war jëndi xar wala def ay courses waaye nañu bàyyi xel les gestes barrières nañu bàyyi xel les conditions d'hygiène nañu bàyyi xel bu ñu dugg ci daral di raxasu buñ ci génnee di raxasu distanciation yi nañ koy def dem naa ba gis yenn pays yi nga xam ne vraiment ay modèle lañ ci discipline nañu booy wax sax da ngay wax nànk pour moytu di booy wax di positionné donc loolu yëpp dafay message bi nga xam ne ko war a ñu def ci tabaski jam am euh, génn ci jàmm mais vraiment encore une fois demander aux gens à ce que ñu bàyyi xel Covid bu ba légui mi ngi bo boo légui léegi nous avons une moyenne de 3 morts par jour am naa amul woon dégg na ben spécialiste barki dem ñu né atteindre guñu ñu pic te boobu léegi yéen a ngi dégg ay nit ñi ngi décédé ñi ngi soupçonné nan Covid la ou pas donc nañ ci bàyyi xel nañu góorgóorlu. Ismaïla Badji et avec comme objet nomination comme ambassadeur de la Croix-Rouge monsieur nous avons le plaisir de vous informer au nom de la Croix-Rouge de Dakar et de Anne, votre nomination comme notre ambassadeur. ñi di la Croix-Rouge section Anne Belair, pour poxandoolu nañ ci mbir mi ngir nommer ambassadeur bu yees moom nag bonne volonté teg ci nekk ndaw tey wuyoo ci tur Ismaïla Badji. mu nekk mbégte ak contentement bu baax ndax tab bi ñu ko tab moom nag nee na dina def kéem kattanam ngir gën a yokk doole lii di croix rouge rawatina section bu Hann bel